Euh, à Kolda toujours am na benn coow bu fa jib euh, jamono ji euh, muy station bu ñu war a ériger bu ñu ériger sur les berges du fleuve Casamance ñu bëri di ko di ko ñaawlu c'est c'est quoi problème. xam nga voici là aussi problème bi nga xamante ni manque de responsabilité dafa baaxu jiit lu tax ma koy wax mooy bi coow li ne kur. Mhm. ku ne daa sànni keneen ki bal bi au lieu de seen fonction. mooy ñan. mooy le le le maire et le président du conseil départemental. Mmh. le co le président du conseil départemental fait une sortie pour dégager toute responsabilité en disant que moom yëgaluñ ko. ma ne ko mais ana say service hmm. tey man mën naa démontrer que ces services faisaient partie de certaines réunions bi ñuy décider affaire euh, station bi. Hmm. ana say euh, nit ñi la mën a jox information. dégager une responsabilité c'est irresponsable en fait. non je dirais je dirais pas je dis ses services voilà. ses services en informer. Mhm. soit day tal waa Kolda soit Kolda jël seen responsabilité loolu tamit wax naa ko fii. Mhm. dama leen artu plusieurs fois dégguñu ma. législatives yi ñëw ñu gisal seen bopp maa ngi leen di artuwaat mën nañ dem di nax ñi nekk au niveau central wala di wax Macky Sall li ko neex waaye réalité bi leneen la de. mais station bi lu ngeen ciy bañ Doura. station bi dafa nekk ci berge du fleuve. man je suis pas un technicien mm -hmm. de l'environnement mais je sais que ça gêne parce que je suis dans un quartier où facilement inondation yi li ñu fay yàq bëri na te foofu la ndox bi di ñëw stocké wu fépp fu mu jóge foofu lay stocké wu tey ñëw na ba station boobu dégg naa benn leader politique récemment di naan kooku dafa am ay kayitam moo tax mu ñeme def lu muy def ma ne leen attention rien n'est assis sur du droit dans cette affaire là rien am na ñu fa occupé woon ñu def un morcellement je ne sais comment ils ont reçu euh, euh, euh, une délibération ou en tout cas quelque chose mhm. mais amuñu un état de droit réel bu leen conférer un droit sur le foncier tey bu ñu lay naan am nga droit ci dara da nga yor un état de droit réel sur le foncier ils ont fait une demande de régularisation en juillet 2022 bii passé avant ñuy commencer amaguñu amaguñu benn këyit ils ont commencé les travaux ils commencé les travaux la mairie a donné un, un, un permis de construire et après c'est rétracté. Mhm. le le le le comment ça s'appelle le préfet à fait un sursis et aujourd'hui ils ont divisé les populations da nga jàpp ni projet bu baax projet bu nar a jëmal fenn kanam. Mhm. dina diviser ay populations bantangeel ne la man bugguma am ay ndaw ñu nekk ci biir beneen quartier ne man bëgg naa. Mhm. ci biir boobu quartier yeneen ndaw ne ñun bugguñu. eh na gars yi respecté waay. un projet lorsqu'il divise il doit être arrêté parce que si le projet est fait pour le grand bénéfice des populations mhm. kenn du ci yëkkati baat ñii nee nañu lii bu fi amee ñii lañ ñu yàkkal kii ne lii bu fi amee mënumaa yàkkal dara lee la autorités yi jël nañ seen responsabilité benn brique ñu fukk a tegaat la société nag bi nga xamante ni moo nekk di tabax di jéem a gis ak ay activistes ñeneen di leen jox dara na mhm. nañu def attention politiciens yi ci nekk di encourager on est au courant man je suis de mhm. sama waa nee nañu bu ci yàlla àndee dara du fa def te man ànd naa ci. bu ñu continuer mën na indi conflit même entre les habitants. mais pire que ça ça va nous engloutir d'abord. Mhm. avant ñuy xeex. dañuy engloutir on va vers les vers vers vers mhm. il faut que gars yi jël seen responsabilité. man de nee naa la société bu mu yàkkati xaalisam li ko des ci xaalis ñu ko fa jox selon les condition yi ñu ko joxee nañ ko wutal feneen. mais la station bi moom du fa fa taxaw. wallaahi azim du fa taxaw man bugguma ci woon dugg. Mhm. parce que bugguma politiser mbir mi. c'est une affaire que les populations ont demandé bi ma toogee ba waa Kolda yëpp taxaw ne bugguñu Bantangel ñëw taxaw ne bugguñu EGF société ba na jël lëmës bagage yi côté ko dem wuti leneen. buñ ko fa defee dinaa fa wàccee une ordre de personne pour ñu décap génnee lépp li fa nekk. dëkk yoon lañ nekk amoo droit def loolu. ñoom am nañ droit def li ñu def noonu amuñu ko droit aujourd'hui le maire a retiré son acte qui leur conférait le droit de construire. Mm-hmm. mooy annulé na. le préfet a dit une suspension ñoom ñoo xam seen terme population yi nee nañ bugguñu et le droit le plus légitime appartient